الله أكبر الله أكبر الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ñi سانت sant سبحانه وتعالى سانت wa ta'ala sant gu ñu barkeel comme ni ko borom bi subhanahu wa taala bëggee comme ni mu ko gërëmee ñi ngi seede ne amul benn buur bu ñu war a jaamu ci dëgg buur boo xam ni soo ko jaamoo jaamu ga amal la njariñ soo ko ñàkkee jaamu ñàkk jaamu ga lor la ku dul borom bi subhanahu wa ñu dellu di seede ni muhammad yenente yàlla la waaye ab jaamam la yàlla na ko yàlla doole xéewal moom ak i ñoñom ak i saxaabaam ak képp ku ko gëm tegu ci yoonam ba ko rob bis loolu yooyu sama mbokk julli ji ñu ngi leen di dénk di dénk suñ bopp ragal borom bi subhanahu wa taala ci jéem digali, jëfe ndigal yi waaye ci tere yi ñu xam ñu ragal borom bi subhanahu wa taala ci la nit ki mën a texee ci la mën a muccee waaye mooy ko moom borom bi subhanahu wa taala ci la nit ki mën a perte ci la mën a jëlee ak alku bokk julli ñi li ñuy bëgg waxtaanee lu bon la lu rëy la lu ñaaw la mën naa yóbbu tiyaaboy nit ki waaye jikko la ju ñaaw joo xam ne mën naa merloo borom bi subhaanahu wa taala moom mi nga xam ne mooy borom asamaan ak suuf ñu bari ci nit ñi nag dañ ko sàggane moo xam ay mag lan wala ay gone loolu mooy li ñuy wax di móolu nit wala nga koy rëbb muy li ñuy wax móolu wala rëbb ci wolof képp ko am xel dina yéemu ci li muy ci li ay moolu aki i ŋàññe ak i xaste ak lu ñuy néewal ak di doya dal li nga xam ni mooy loolu ñuy dégg ci ñenn ñi donte ay waajur lan ñuy moolu seen doom yu góor wala seen doom yu jigéen nga gis xarit di moolu moroomu xarit xaritam wala xaritam moolu ko mu koy delloo lam ko wax di fayu man na dem sax ba ñu egg ci dal ko ak oyafal ko ba ñaari morom sax te nekk xalé goor buñ dajé buñu nuyo sax dañuy muulante di saagante kenn ku nekk di ree japp na ni lool ñi def du dara dina gëna feñ dina gëna fess fees bu fekkante ni ñi ngi nekk ci jëm ci walu fo ci walu sport wala lu jëm ci walu jongante wala su fekkee ñi ngi eh, waxtaan ba kàddu ya xawa a ku ba dënn ya xawa juk ni ko noonu boo ci transport bi ci chauffeur yëpp ñi ñi andal ci liggéey ba naka loolu lañ japp ni ku ko nan ta tawoo wala dëkkoo ci dëkk bi di mool wonte di wonte da nga gis ñu ci ëppal dem ba yegg sax di moolu diine yi sa mbokkum julit ngay moolu li nga moy dem ba kay wax ni ko laanatullahi ala dinik di rabbu diina ji nga xamni ci la nek loolu nga xamni weddi yàlla gu leer naññ ndax kooku dafa ñàññi la nga xam ni mooy diine borom bi subhaanahu wa taala noonu ngay gisee keneen di moolu nit ni ko sa askan yëpp ba ci yonent yàlla aadama ba ci aadama sa askan yëpp ba ci aadama maa mool te kooku ca askanam xamoo ñaata nit ñu baax ñoo ci nekk waaye xamoo ñaata yonent ñoo ci nekk te loolu nekk loo xam lu danger yàlla yi ñu xam ni rëbbu nit ak di ko benn bàkkaar la ci bàkkaar yu mag yi yonente bi alayhi salatu wasalaam salam na rëbb wala moolu sa mbokum julit da nga man ni ku ray hadith bobu ahmad gënal nako albani taseex liñ wax ci sens bi moy moolu sa mbokum julit dafa tollo nga rey sa mbokum julit ci bakkar manam boko ko mo moom nga rey ko ñoo tollo li nga moy bakkar as-sahabi al-jalil دي salama ibnu ibnu al-aqwa radiyallahu anhu nee na bu buñ masaa gis benn waay muy moolu di rëbbu mbokkum jullitam dañuy gis ni moom def na benn bàkkaar ci bàkkaar yu mag yi moolu wala di rëbb sa mbokkum jullit bokk ci jikko yi ñi nga xam ni ay jullit lan te seen gëm yàlla mat ndax yonente bi alayhi salaatu alayhi salaatu salaam wax na ci xadis bu wér nee na jullit nekk koo xam ni dafa nekk war a nekk taaan fu mu nekk rek di wax lu ñaaw ci làmmeñam wala muy saaga mbokkuñu mbokkum jullitam julliña jullitam wala di ko xas waaye warta nekk laan di ko rëbboo ko móolu warta nekk kuy jëf lu baax lu bon jëme ci moom waaye warta nekk kuy wax lu bon jëme ci moom ñi nga xam ne seen jikko mooy jur móolu nit ñi ak leen rëbb bu ëllëgee yowmal qiyaama duñ bokk ci suhadaa yi duñ bokk ci sufaa loolu yonent bi alayhi salaatu salaam moo ko wax nee na ñi nga xam ne dañuy móolu waate ak di rëbb waate bu ëllëgee yamal xiyaama duñ bokk ci suhadaa yi duñ bokk ci sufaa yi loolu sens bi mooy lan duñ bokk ci sufaa yi yamal xiyaama su fekkente ne nit ñi ñi nga romb seen mbokk yi nga xam ni dafa waroon ci ñoom ñu duggu safara yàlla di leen terale ñoom ñu bokk ci ñi leen di romb pour ñu bañ a li nga xam ne mooy safara nee na ñoom bokk ci ñi ñuy sélectionné ñuy def loolu di leen terale loolu duñ bokk ci suhadaa yi ñetti sens ñëw na ci bu ca njëkk mooy comme ni nga xamee ni xeetu Muhammad alayhi salaatu salaam ñooy témoin yeneen xeet yi nee ñoom boo ëllëgee duñ bokk ci ñi nga xam ni ñooy témoin ci xeetu yonent bi alayhi ci yeneen xeet yi di wana ni yonent yee dafa am na la leen war ñaareel bi nekk suhada ci ci àdduna maanaam buñ defee seen seede ci àdduna kenn du ko nangu ndax dañoo nekk ay kàccoor ñetteel bi yàlla du leen wërsëgal ñu mën a nekk ay shahid maanaam ñu mën a nekk martyr yoo xam dañoo dee ci yoonu yàlla mbokk julli ñi képp koo xam ne dafa rëbb rëbb wala mu molu koo xam ne yoyoowut wala wut ñu ko koy def na xam loolu mu def day dalaat ci kawam maanaam bal bi day retourné ñëwaat ci moom ndax yenente bi alayhi salatu salaam nee na jaam bi su fekkee dafa rëbb dara rëbb bi day yéeg ba ci kaw asamaan ñu tëyal ko buntu asamaan mu wàccaat ci suuf ñu tëjal ko buntu suuf mu xool ndeyjoor xool càmmooñ su amut fu mu mën a jaar ba dem nee na day dem ca ka nga xam ni moom la rëbb woon su fekkee kooku mérite woon na rëbb gën ko rëbb mu dem ci moom su fekkee kooku mérite wu ko yow mi ko waxoon ci yow la dalaat maanaam fu mu jaar daal dina am fu mu dem bokk na ci façon rëbb yi gën a tar nag mooy nit ki di rëbb ay waajuram ñaari waajuram daan ci yàlla musal moo xam moom moo jekk-jekk rek moo la leen leen wala dafa nekk sabab ci rëbb goo xam dañ ko rëbb ay waajuram ndax yeneen bi alayhi salaatu salaam nee na bokk na ci bàkkaar yi gën a mag mooy nit ki di móolu di rëbb li nga xam ne mooy ñaari waajuram saxaaba yi ni ko nan la nit di taye di rëbb ak di móolu ñaari waajuram mu ni day saaga wala day rëbb day móolu waajuru jàmmur kooku delloo ko ko su ko defee day mel ni moom mooy ki ko def wér na bàyyi ko ci yonente bi alei salatu salaam yàlla rëbb na képp koo xam ne day rëbb ñaari waajuram xadis boobu mu ci muslim yonente bi alei salatu salaam day aaya sax ñu rëbb ci la nga xam ne ay dawaab maanaam ay animaux yoo xam ne dañ leen di jëfandikoo di leen war wala ñii leen di sëf dara wala sax yeneen animal yi wala sax ci loo xam ne chose la jamaat la yonente bi day aaye ñu koy rëbb lu mel ni ngelaw wala sibur wala sax jamono imam muslim dafa solo ci xadis boo xam ne mi ko jëlee ci Imran ibnu Xusayn mu ni dañoo nekkoon a yonente bi alayhi ci benn ci yi fekk am na seen ndaw su bokkoon ci ansaar soo xam ne dafa waroon benn giléem xëy na giléem ga na waroon a doxee neexu ko wala def na daal lu ko neexut nee na mu ñit ñi mu mer ci giléem gi tax mu moolu ko ba yonente bi alayhi salaatu salaam déggee loolu daal ne jël leen bépp bagage bu newoon ci kaw giléem gi lépp luñ tegoon ci kaw jël leen ko ndax giléem gi dafa nekk mal'una moom mi nekk la xadis bi nee na ginnaaw ba giléem bi nii lay rombe ci biir nit ñi kenn du ko faalee maanaam mu mën ni koo xam ne daal àddinaam dafa yàqu bu fekkee ne daanaka mën naa dal ci bàyyi ma waxuma li nga xam ne mooy doomu aadama te bu fekkee giléem gi sax moom duñ wax koo xam ne dañ koy ñaanal yàlla soril ko wala dàq ko ci yërmandeem waaye day nekk kon muulu gi nga muulu yow mi ka muulu ci yow lay lay delluwaat kon yow yaa cay gaañu ñaar yoon Abu Dawuda solo na ci hadith ba xamne mi ko jël ci Ibn Abbas radiyallahu anhu mu ni ben waaye dafa mool won dafa rebb won li nga xamne moy mooy ngelaw yenent bi alayhi salatu ni ko bu ko mool ndax mom limi def dañ ko degal digal kese ci tek ni kep ko xamne dafa rebb dara ta lam rebb lam merto won loolu mu ko def kon mom mbir mi da del ci wat nga xamne moy ci kawam jam yalla nañu setantal danger bi nga xam ne di rëbb wala di muula sa mbokkum jullit am na ko suñ yaay aïcha radiallahu anha dafa nekkoon ak yonente bi alayhi salatu salaam am ci yahudi benn mbooloo mu ñëwoon ci yonente bi alayhi salatu salaam ba ñëwee ñu ko assaamu aleyk maanaam dañoo mën ne ku koy nuyu waaye dagg laam ga ñu ko assaamu aleyka assaamu mooy dee maanaam ñu war kaa yàlla jàmm nekk ci yow ñëw ñu ko yàlla nga dee yonente bi daal leen di fay wa aleykum lu ngeen wax rek yonente bi yàlla ngeen ko am suñu Aysa daal di merci ci loolu tax mu daal leen yéen tamit yàlla na ngeen dee yàlla na leen yàlla rëbb yàlla na leen yàlla mere yonente bi alayhi salaam ni ko yow Aysa defal nànk maa lay dénk nga bañ a jëfandikoo li nga xam ne mooy violence wala ngay wax wax ju ñaaw suñu Aysa ni ko xanaa déggoo li la wax mu ne ko xanaa déggoo li ma leen tontu te man li ma leen tontu suñ borom dina ko nangu te ñoom lañ ma ñaanal yàlla du ko nangu xadis boobu mi ngi ci buxaari muslim yonente bi alayhi salaatu salaam kon fii dafa wax suñu yaay Aïcha ni ko defal nànk digal ko pour mu dal waaye wattandikuloo ko muy jëfandikoo doole ak violence waaye tere ko pour muy rëbbu ak di móolu mbokkum nitam salawatullahi wasalaamu aleykum nan lay mën a demee nag ci koo xam ni limi muy rëbb ci lamiñam ak wax ju ñaaw ji mi nuyo ci limi nuyo ëpp limi nuyo nuyoo limi nuyo muy ci mbokkum jullitam di ko ken asalaamaaleykum li muy saagaaka wax lu ñaaw ko kon dina jaadu ci kenn kenn kenn ku nekk ci ñun mu xolaat boppam ragal borom subhanahu wa taala jema ñongal aw lamiñam waye di ko di rëbb wala muy muy móolu ci jullitam ndax bu ëllëgee yawmul qiyamah dess na ko laaj lool mbokk jullit ñu xamni wala sa mbokkum bakaar la bu mag euh, ki nga xam ne moo ko jikkowoo di ko def ñi nga ragal ci moom suñ boroom euh, teg ci moom mbugal fii ci àdduna waaye bu ëllëgee àllaaxira mu am fa mbugal mu metti li nga xam ne ñenn ci jeunes yi dañ koy def tey nag comme niñ koy waxoon léegi bu ñuy nuyoo daanaka ay saagante la def jàppe ko kafagree ku nekk di wax ni yaa gën a ñaaw làmmiñ ak di rëbbante di muulan muulan muulante loolu mbir la mu danger moo xam ni war nañ ci bàyyi xel ndax borom bi subhanahu wa taala nee na nit ki amul lenn li muy wax lu dul ni am na malaaka mi ko boolal ñoo xam ni ñu ngi koy fuglu di bind li muy wax ak ko jëf moo xam lu baax la wala lu bon bukhari muslim solo nañ ci hadith jële ko ci abu hurayra radiyallahu anhu mu ne nit ki dina wax benn baat yoo xam ne sax du ci bàyyi xel waaye du ko jàppe dara baat boobu mën naa tax mu dugg ci safara ci distance boo xam ne dina toll ni diggante sow kon dina war ci waajur yi ak ñi nga xam ne ay kilifa lañ ñu jéem a fegal xale yi euh, di leen moytandikuloo ñu tàmmal loolu seen làmmiñ euh, bala ñoo nekk mag mbokk jàmm ja mbokku mbokk jullit ñi nañuy jéem setal selal suñu làmmiñ ci di tarxiis di def ay erreur ci wax lu ñu warta wax wala ñuy móolu wala ñuy rëbb suñ mbokkum jullit wala ñu koy wax lenn loo xam ne borom subhanahu wa taala daf xaramal nga xam ne nit ki lépp lu muy wax des na ko ca réglé bu ëllëgee yamal xiyaama comme ni nga xamante ne lépp lu mu fas ci xolam bi wala lépp lu jëf des na ko ca euh, réglé wuteeg ñi nga xam ne dañuy wax ni dañuy def lenn nga leen di wax ni sama yéene dafa baax wala ñu ne lii jubluwuma ko woon nga xam ne yonente bi alayhi salaam ba ko waxoon ne yàlla du xool euh, ni mu leen bindee moo xam da nga ne njool wala da nga gàtt wala da nga ne xees da nga ñuul am ngeen yaram saw sew ngeen loolu yàlla du ko xool waaye yanduru ila qulubikum wa amalikum yàlla day xool li ngeen fas seen biir xool yi waaye ak li ngeen di jëf kon li ngay jëf ak di ko wax ak li nga fas lépp borom bi subhanahu wa taala dinañ ci réglé yonente bi alayhi salaam ci xadis boo xam ne Muaad ibn Jabal moo ko laajoon lan moo dugal safara soril dugal àjjana soril ma safara ba mu limal dafa wax ne ko bu ma la résumeel mooy daal na fexe ba te li nga xam ne sa mooy sa làmmiñ maas ni ko ndax ñun lii bàyyeekoo suñuy làmmiñ des na ciy jàppe ndax dañu ciy bindal bàkkaar mu ne ko yow dag yàlla nga deeral est-ce que xanaa xamoo ne ñu ëpp ñuy dugg safara la tax ñu dugg fa mooy loo xam ne ci seen làmmiñ la bàyyi ko xadis boobu Tirmidi soloon na ko Albani saxeex na ko inna allaha wa malaikatahu yusalluuna ala nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم اجعلنا من أتباع نبيك صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا واحشرنا في زمرته وارزقنا ورود حوضه ومرافقته في أعلى الجنة يا ذا الجلال والإكرام اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم خلصنا من حقوق خلقك وبارك لنا في الحلال من رزقك وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين اللهم اصلح احوال المسلمين اللهم انا نعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم ونعوذ بك من فتنه المحيا والممات ونعوذ بك من عذاب القبر اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات واقم الصلاه إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون الله